asxaabu jir yaa leen ak kuy mel ni sàngara kenn neex jam neex yu xalqilu ba gën a mu lamal menen ci waxe arab na xalqala muy feeñal noonu ñu ko tadde yu xalqil ko mel ñu ko saa fa am loo din teerat aji xaw yaa ci ba sax na tawa ibi kuraaji ñoom ci jubbi moom adim tëdd gu ñu xawul kawaram mu ne boo demee da nga gis garab bu naata naata naat borom xob yu rafet texe moo borom yaram bu rafet rafet rafet ron garab gu ndox mu neex taaji def turin mu rafet nag mu wër teru garab te ndox mi comme sàngara la ci neexee purit mi mel ni am na moom xaalis wala mu wóorut su ko defee taxawaayu garab bi mel ni xeela bu ne gu taar lool xob yu mel ni kawar wala waxa baabi jël jëriyaade ak kuur itam ndox mu mel ni sàngara yoo xam xëy na moom dana mu lamal saaxa am loo dem feeram aje xabu bi ha ci toolu dëri fax ni sawaay e bi suraaj ñu ngi ci jubbu moom adin fere suñu xabul kawaram ni daan in xaliin lubbuhu aw xabwatul isbaaxi baada tahajjudi aw addu masraati lfuraati ala dama aw waslu hibbin baada hajrin mubaadi bi alazza min tilka allayaali lawmaha maa xattahu dabaraanu saadul asaadi tasana ainnataha zamaanu wa asfarat talaatuha min baadi washin arbadi واستبدل الأيام ذات عيشها غدا وبالي وصلها بمجددي ñu jàngal lool ma ne aw am nu si faraqin da doon wax yi nga xam ne dara ci dàqut ayaam sabibatihi wa siba waxoon na rajulun faynanatun wala rawdatun bi xamilatin te yooya lay wéy wala aw amnu si faraqin wala hóolu borom ak ragal xali en kede ku ñu summi lubbuhoo kalam wala koo sii ba tàggoog sa bopp xel mu dal dikkal ko ca gannaaw tiitaange jooja xel mu dal mooma day doon lu neex lu mu yëgoon am na ci soxla lool aw xafwatul isbaax wala nelawi suba baada tahajjudin ci gannaaw ak fokk wala dafa manqué le nelaw guddi nelawi suba teel ni moo mel ci moom xam waxtu bu neex a nelawee la ndax yi gëten nit ci guddi yi ci bëri dal na yi gëten nit ci bëccëg yi ci bëri ak seegut ah diggante tàngooru bëccëg yëngatu bu bëri bi ak seegut te rag lu guddi dem na lafaan xër xër bu neex a nelaw weela su fekkee nelaw kay dana yam bànneex léeg-léeg nag su fekkee yow sa jëmm dafa soxla nelaw te nelawoo man nay war a sànq nga di nelaw ci heure boo xam ne neexut a nelaw kon nag bu fekkee yow da ngaa àgg foofu ci soxla nelaw nelaw yi suba naka lay mel ci yow wa aw xafwatul isbaax wala nelaw yi suba baada tahajjudin ci gannaaw ak fokk marahat bi masrahatil furati jar gi xamuñu anam jar gi moom xamoo lu ko waral marahat bu masrahatil furati wala ji neexi rotuwaay ndoxam furat xalaat dama in ànd mar wala nga mar mar wu tata tata tata ci ndox mu bàyyee ci nahrul furati nga xam ne neexaayu ndox mi na laa hen de naan te maroo nga àgg ci mar fu xaw ne mar mën na laa yéen ci ngay naan mu neexut kon boo maree danaan ci ndox mu neex moomu day doon lu xam ne dara tolluwut ni moom ci yow aw wasli hibbin wa aw waslu hibbin wala jokk ak soppe baada hajrin ci gannaaw ak tongu mu maatin gëre gu wala nga am soppe mu jox la gannaaw lu yàgg yàgg yàgg demee ba jox la një na ngay kontaanee jox gam la jox një ndax génn gi nga génn ci métti si tong wax xam nga dara la ah, dara du ko neex mooy déet yi bi alas sa di gën a neex min tilka layaali guddi yooyu mu ne yi ma la wax nii diggante dawxatun fay naana ak lu mel ni rawdatun dexamila ak lu mel ni am nu si ak lu ne xafwatul isbaa ak xasbu masraatil furaati ak watlu hibbin baada ajrin mufaati mu ne lenn ci dàqut layaali sabibatihi wasila a lenn ci dàqut guddim ya law ma haa xellante woon par maa li nga xam ne xattahoo rëdd na ko a dabaraanu dabaraan sandul asandi sandu soxoor mu ne dara ci dàqut fan yooye xellante woon sanadu soxoot mu barke mi faral ñu rëddu dabaraan mu gaagu mi law ma haa xellante woon far law bi harfu tamanni la maa li nga xam ne xatta woo rëdd na ko ak dabaraanu dabaraan sanadul asandi sanadu soxoot xellante woon sanadu soxoot mu barke mi faral ñu rëddu dabaraan mu gaagu mi maanaam at mi ñeenti jamono lañ koy xaajale ñenn ñu ne ñeenti fasal mooy rabiho ak sayfu ak xarif ak sita wala nga ne noor ak sébét ak nawet ak lolli mooy noor ak sébét ak nawet ak lolli su ko defee rébillon mooy bu ci dàq bu dikkee jaww ji day xemoo ay tàngoor yi gite nit wala sedd yi gite nit du bëri noonu te itam xewal day bëri ci suuf si bëri yu naat bëri yu yomb te itam dal gi jaww ji dal ak xewal gi bëri xewal bëri gi bëri ci suuf day feeñ ci nit ñi bu baax a baax loolu moo tax mooy fas lu bu dàq ci butooli at mi bu jeexee sayfu moo ca topp ak tàngooram wu tat wa lool su jeexee xariif moo ca topp ak soxla ga lool su paree sitaa moo ca topp ak sedd bu tat ba lool su ko defee ñeenti ñeenti faslu yi benn bu nekk juróom-ñeent fukki fan la benn moo ci doon juróom-ñeent fukki fan ak ñaar soo defee nag juróom-ñeent fukki fan ak benn ba muy ñeenti yoon daf lay jox ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent soo ca tegee benn mu jox la ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom loolu mooy li ma fani at mi trois cent soixante cinq jours loolu la yéen ko baax a baax lool jant bi mu ngi koy wër diiru at maanaam loolu euh, euh, puudar yooyu mu ngi ànd ak dox jant bi dafa am ay biddiw yu ñuy tuddee ay manasil am ay biddiw yu ñuy tuddee ay buróoj manasil yi ñaar fukk lañ ak juróom-ñett buróoj yi fukk lañ ak ñaar mansil bu nekk jant bi dana ànd moom ci penk ak ci cinq diiru fukki fan ak ñett dal ko romb toxalu ci beneen lu mooy benn rek la ci ànd fukki fan ak ñeent burju bu nekk jant bi day ànd ak moom ci diiru wer su ko defee faslu bu nekk juróom-ñaari manzil la am burju la am parce que juróom-ñaar bu muy ñeenti yoon moo lay jox ñaar ak juróom-ñett ñett bu muy lay jox fukk ak ñaar su ko defee nag Rabi'a mi gën a neex ay manasila mooy mooy farqul muqaddami farqul muaxari batnul woot ak nudru ak busaynu ak surayya ak dafaraam waaw boo xamee na muy jant bi mu ngi ci man tudd dafaraam rek li muy tëgg la mooy Rabi'a jeex si na ñu ngi tëgg ma sayfu mu tàng mi kon dafaraam gannaaw jant bi xaal gën a ji day wane ne li neex jeex na kon mooy lu gaaf li li affaire du lëndëm gi bu fi leer mu di ci teg ci lëndëmam dina ko baax a baax su ko defee sëy bu dikk ak i manaasilam jarul may la leen limal xarit dikk ak i manaasilam sitaa dikk ak seddam bi bu sitaa mi jeex rabi ma doog a mën a sita ay manazilam mooy mooy sawla ak naim ak balda ak sadu sabia sadu sabia euh, sadu gula sadu soot sadu gula sadu laxbiya kon jant bi bu àggee ci mansil wuñaa sadu soot dafay teg leen léegi tey rek daal sita jeex te buy jeex rek sedd bi jeex rek yow mu neex mi dikk kon noonu sonat mooy borom leer nga xam ne su ñëwee lëndëm gi fi dabaraat nekkoon defoon mooy li koy far <laughs> loolu bu baax a baax waaw dafa mel ne nit dundam ay marahil la ay jaar jaar la su ko defee marhala bi ci dàq mooy ayamu sabibati wa mu jeex rek dafa mel ni rabion la woon boo xam ne dabaraat moo ci teg la tëm ànd ak asabi huwa siba su ko rek jeex na du ja du du am mu ne hellante oo nag rabien oo ci hayatul insani te mooy ayamu sabibati wa siba mel ni rabien oo ci at mi ànd ak dox ak jant bi nga xam ne bu dafaraan rëddee itam bu yàggee sans du son di dana ko far hellante oo nit di romb ak ndaw ma ca kanam mu des ne at ca man da فاعتزل شجر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل ودع السكرى لأيام الصبا ودع السكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أصل ah on est vidéo soxla likkati wala law ma ah xellante woon par maa li nga xam ne xattahoo rëddoon na ko a dabaraanu dabaraan saadul asaadi saadu soxor fasanaa dal di wëññi mooy leem ayen na taxa fagi fan yooyu asamaanu jamono ni konoon fan yooyu dana mën a dal di xaar waa farata leer wala xatuwaa seeni xar kanam ñoom fan yooyu même ban di wajin ci gannaaw xar kanam ar bëri bu daa ji xame doom taal kon jamono ñëkkalam bii ah dana ci génnaat firi askan maye bu baax ni ko noonu naqat yi ñuy dund ak coono yi dañ ciy jógee ah delluwaat ci dund bu neex loolu mooy wax bi kon jamono ñëkkalam bii ah dana ci génne mu jamono woon ñu talaa musfira talaa mooy xar kanam boo xam ne boo koy xool da ngay kontaan waaw ah. kon jamono rëbët bii mu wan ñu ci xar kanam talaaw dana ci génn mu wan ñu talaa musfira mooy jamono masque bi ñu masque ni ñuy dund ci ay naqat ak i coono dana ci génn ñu delluwaat ci dund bu neex bu ànd ak mbégte loolu mooy li mu bëgg a wax. waa farate la salaatuha xar kanami fan di wajin ci gannaaw xar kanam arbadi bu raa ji xamee melaw doom taal. wasadalate wat al ayaamu fan yi. daabil aysiha seen dund bu raa ji lax. wax dan mu raa nga xam ne dund bañ daan dund boobu mu mel ni bu doon gàncax lax na. konoon dana mën a wëlbati ko naat lool. suñuy neex neex daal jeex la gën a jege konoon doon na heese ha wañu wattu ñoom fan yi baali ye wasli ha seen jokkoo gu daa jarappu du mu jëddadin ci jokkoo gu ñu heesal fan yi nit ñu joxee gannaaw nii xam ne suñu jokkoon jokk ga rapp na kon jokk ga dana heese ha mooy ni konoon neex neex yu jeex ya dana delsi ha naqadi tey yi ñu tàggoog moom wastabdala te watta al fan yi daa bil ay siha dundam ba daa ji lax mu daa naat wañu wattu ñoom kon yi baaliya wasliha seen jokkoo gu daa bi mu ci jokkoo ñu yeesal baax na ko baaliya wasliha bi mu jaddadi saqiyan li ayaamin wa yahwanin mataw hadasun hada bihimu li anha mulhadi wa maahidin wa mahadirin tarat biha anqa'u mu'ribatan ila mutasaadi hal min asaya fi hadaya musrin mawliyatin mawsiyatin min awwadi wa tajadubil khalsai kasatin biha mil unsi adaba min sulafati sarxadi wa matarifun min widdi yaltaxifunaha yulqil xafiyu ala alxafiyi bi mixsadi ñu jàng lool ñaare bu fonkee dada saqiyan laa mu ne saqiyan maa ngi nandal bi ayaamin ñaal ay fan yu wéy xam ay fan yu wéy ci sama dundu fan yooyu yàlla bu ma leen fàtteeti dañoo wataay te dañu leen waa añ wala ànd ak añu wóoloo yow waaw saqiyan li ayaamin madat mooy ayaama kuntu raxiya baadin fi dara hadibin alayya muwassinun muwassinin muwassidi mu ne ayaamun la ansaha ay fan la yoo xam ne du ma leen fàtte mukk ak boo xamee ne sama xel daj na rek dama naan saqiyan laa wa maa ngi ñaanal nandal ba tey li ixwaanin ñaali bokk mataw ñooñu wéy nañu am na itam ay bokk yoo xam ne wéy nañ du ma ak boo xamee sama xel dañ na leen rek dama naan saqiyan lahum min kulli di samatin judaylin raisin wa asamma mubtahilin wa fatan lahu ihnaahu kahnin masada wala ixwaanun la ansaahum moo tax boo xamee na leen rek dama saqiyan lahum saqiyan maa ngi ñaanal nandal li ayaamin ñaa ay fan yu wéy wa ixwaanin ak ma daw ñuñ wéy nañ xam ne xaddasun xew-xew bu mag xadaa moo mag biim ñoom yaan xaa mul xadin jëm si jubluwaay ba moom ba mel ñu doon ñu xam ne mbir mu mag moo leen jëlee ci kaw suuf yóbbu leen ci biiram sax mu nekk mbir mu xam ne xaw nay xëpp sàllalu ndax garaaw gëmu garaaw te mooy dee dafa bokk ci waxinu arab di wax di nëkkiraal te fekk dafay garaawal li muy nëkkiraal da koy màggal loolu moo ci am hadasun xew bu màgg xew-xew bu diis xew-xew bu garaaw daal xadaa moo màng bihim ñoom li an ha mulhadin jëm ci jubluwaay ba moom bàmmel la wa mahahidin ak i miinuwaay wa mahadirin ak i teewwaay nandal hmm? ah bi dama gis doon wa manasirin ak ay wàccuwaay ma doon wax naan wa ida mararta fa hayyi hayyiya in humo wala watanun ayittu bihi sabibata wa wa dilaali aysin ak këri dundu muriqil axsaan bu raaji sëq ji bànqaas ak dundu ba nga xam ne bu doon garab dinaa garab gu sëq la ma nekk ca caram gu sedd ga mooy suma dundu bu neex ba nga xam ne haysun baasiqun asabatuhu aniqul muhayya arxadu dundu booba rek laysa xuraabuhu déet baaxaañam bi mu taarin de lu ñu naawal xañ na loolu la woon waaye dañoo taatu wala siyaan moo ci am da ngay bind ba am foo sës maanaam lii la tànn waaye nag baat bi lii la tànn nga mooy li maanaam tànn jaarale xalimba gi si li baat bi tànn na ko topp am na ko moy loolu mbindin la arab li muy wax mooy hum fi aysin la yutaaru xurabuhu ñu ci dund boo xam ne su ko baaxaañ saboon kenn du ko gis muy baaxaañam gaaf nga ko dàq daa bokk ci seen mbir sabi baaxaañ yi ñii ko xaajale xam sab bu ñuy wax ne day xam le xiw mooy sab biñ naan moo barke xam sab biñ naan day xam le hay mooy sab biñ naan moo gaafu sab biñ naan moo gaafu nag baaxaan bi ñu ko tuddee kenn du mu dal ci barabam fu mu bëgg a dal rek dañ koo dàq sab biñ na nag mooy bi mooy barke bi baaxaan bi ñu ko tuddee dalit dañ ko bàyyi ba mu bëgg a naaw naaw rek su ko defee ñu moom nag dund bi mooy dund su ko ko baaxaañ sabaloon avant muy ñëw dana xam ne jox na ko xibaar bu ne ba du ko dàqati lay sa xuraabu déet baaxaañam bi mu tarradin de lu ñu dàq de lu ñu naawal waaye bindkat de bindkat bu mag a mag la ma ne de ku xam wéy la te ku ko mën a mën la waaw as-shi'ru in lam yakun fikra wa wa xikmatan fa huwa taqtiun wa awsan mu ne seeru bu lamboo sigra ya tayiba yëngalul hatifa kenn lamboo xaqiqa boo xam nit mën na ko tëj ci kanamam daji ko ndiru lu yàgg mu ne du seeru li am mooy kalamun muqattaun mawzun la wax bu ñu dagg natt ko la rek waaye du seeru seeru il faut da yëngal seerul insani waaw الشعر إن لم يكن فكرة وعاطفة وحكمة فهو تقطع وأوساط ذوبا xanaa fii ci réew mi ñu koy ay saariir lañ waaye duñ ay saara ah fii ñu bëri ay saariir lañ. waaye duñ ay soxara dégg nga soxariir mufrad bi soxroor la soxara mufrad bi saxir la soxroor mooy ku feebal la ku yëngatu ci way te feebal trop ah moo fi ëpp nag moo fi ëpp manaasilin ak i wàcciwaay wadi laali aysin ak këri dundu mooriqil aqsaadi buraaji sëq ci banqaas laysa uraabuhu déet baaxaañam bi mu tarra delluñu naawal wa maahidin ak i miinu waay mooy dëkk ba nga xam ne ci la jeexale ayaamu sabibati wa siba wa mahadirin ak i teewu waay barab yi ma miinoon daa fa teew ak soppe yi taarat naaw na biha ak ñoom muy mahayit ak mahadir yoo xam ne da koo naawee an qaaw an qaa mooy kenn déggatul leen fenn waxuma la leen gis fenn yaakaar naa an qaa moo leen yóbbu muxribatan bi mu daa ji sori te sori ñoom lool nag ila mutasaadin jëm ci barab bu yëkkateeku wala muxribatan daa jéggi dayoo ila mutasaadin jëm ci barab bu yëkkateeku xam-xam moo leen naaw ak ñoom tey kowede kowede dem rek an xaa dafa am ñu ne ismun bila musamma la mooy lan nañu ko tudd waaye mustahab comme mos daa am kenn di ko dégg fenn kenn du ko gis fenn su ko defee loo xam ne mënoo ko dégg fenn mënoo ko gis fenn ñu ne am xaam moo ko yóbbaale alxulu wal buumu wal anqaau salisuha asmau asiyaa lam toxlaq wa lam wal buumu wal anqaa'u saalisuhaa asmaa'u ashyaa lam tuxlaq wa lam takun mais eh, daa amuñu ñenn ñu wax ne am janaaw la woon bu xam ne daraan fëkk ngir tey nit ñi mu dajjal yonent bi ñuy wax Hanzalatu bnu Safwaan ñun yonent la bu dox diggante Sayyidina Muhammad ak Iisaa kooka moo ñaan yàlla mu jeexal ngir tiim tur wi des ki kenn mënatu ko jëf fenn su fekkee lu ñoo tudd te mos daxam la su fekkee lu jeex te tur wi des ci la yëpp a jeex luñ dul gis fenn la lu tudd lu ñoo dégg fenn su ko defee mbir boo xamee ne xamoo fenn fu mu xam déggoo ko fenn waxuma la dégg gis fenn yaa xam xaar moo ko naawee moo ne dund gu neex bañ daan dund amatul fenn ko fenn waxuma la déggu ji fenn an xam moo ko naawee te dem ba kowe lool nag wa maa hidin ak i mbinuwaay wa mahadirin ak i teewuwaay taarat yooyu naaw na biha ak ñaman xaw an xaa mugribatan mbiroom mu daaj jéggi dayo ila mutasaadin jëm ci yëkkatee ko waay moo naaw ak ñoom da dem ca kaw da dem ca kaw hal min asaya eh, ndax ay ngoon fii hadaya ci ay suuf musfarin yede yede way jaayu ci gàncax ardun nasira mooy ardun tahtazu nabatuha ardun ardun yahtazu nabatuha mawliyatin yada yu ñu taw ay tawi seppali mawsiyatin yada yu ñu njamal mooy dañ leen taarale ay xeeti gàncax ndax ngoon yooyu bina watin way kalsi lañ asaya dafa nekk mubtada ñu jar koog minam zaid watin de xabara ñu jar koog minam zaid inrab bin la ca te weneen inrab xam na irabin woowu nag la lay sàmmal firihinam waxuma ne nag beneen irabin mënu ko génne beneen jogalin firini mënu ko génne waaye dama tànn boobu rek mu ne ngoon yañ daan xam ca suuf ya nga xam ne jaww ju neex moo fa nekk ca suuf ya nga xam ne mu ngi toll ci digg naataangoom ngoom ga de jaayu ci suuf ya nga xam ne taw na ca ay tawi feppali ba mu koy tepp ca suuf ya nga xam ne su bari lum nangu la suuf yu bëri yu luñ nangu la ba boo demee ay xeeti gàncax ak xeeti reyaxin ngay barab yu neex yooya ak ngoon yu neex yañ fay xam yañ fa daan xam dana desee tam de waaw ngoon yu neex yañ daan xam ca permenaatu la fi aradin tayibatil hawa fi aradin ihtazza nabatuha fi aradin musayyanatin bi anwaa'i rayaahiini wan nabaat ndax dana dana dese yaa tam de est ce dana dese yaa hal mina shay'in ndax ay ngoon fi hadaya ci suuf al hadaya jam wala mufrad bi adiya la mooy ardun tayyibatul hawa mustarin yéen way jaayoo ci gàncax addun masira mooy addun muhtasatun nabati mawliyatin yéen ñu taw tawi seppali mawsiyatin yéen jamal mooy dañ leen taaral ay xeeti gàncax ndax ngoon yooyu mene watin way del si lañ est ce que dañ del si wa tajasubil xalsaa yi kaasatin ay kaas bihaa ca ngoon ya wala bihaa ca suuf ya mil unsi ci wétal azaba kaas yu gën a neex min sulabati sarqatin ci sangara bi sarqat xana ko baax a baax ak xarit ya dajee gañ daan dajee ca ngoon yooya wala ca suuf yooya di kenn ku nekk la moo def ci xolab morom ma ci mbégte sàngara suñ lëggéeyee sarxat mënu koo def ci xolab ka koy naan wa tajaazubil xalsa ak joxante xarit yi kaasatin ay kaas biha ca ngoon ya biha ci tilkal asaya wala biha ca suuf ya biha ci tilkal asaya min unsi ci wéttal mu nekk ay kaasatin min al unsi xam nga mafoon la dafa nekk jamal mu annas salim ñu war ko nasabee kasra waaye mooy mafoon lam tajaasubi moo tax naat bi ñu ne ansaba kaas yu gën a neex min sulafati sarqatin sàngara si sarqat kon nga jàng loolu ba beneen incha allah arifun mil witti yaltahifuuna yurxi alxafiyu ala alxafiyi bi mexsadi ويسونها حبرا ببذل فائض متكيليهنة بأوفى محفد وفرين ثروتها بعز ثالد سمق أعاليه عريق المحفد هيهات يرتئب الزجاج إذا انفأ ويعود شيخ في شباب الفرهد فرهتي درجوا كما درج القرون وغالهم ما غالهم والمرء غير مخلتي jàng loolu da wax ne ndax démb dana delsi ca suuf yu naat ya ca daje xarit ya wa matarifun ak ay malaan yi cëw nga mu taraf mooy malaan gu baax gu ràññeeku mil wit di ci cofeel mu ne ak xaritoo la ñu ak xaritoo gu dëggu ga xam buy mu te dem mu dëgër dafay jot li muy sàng te itam dañ ko yàgga sàngoo du ko wàññi dara malaat moom mu traf seen xaritoo gi dafa ànd ak sàmm lu bëri ànd ak ngëbante gu dër ñuy suturalante bu baax baax ndax xaritoo loolu la laaj dafa laaj wattulante ay mbóot dafa laaj nëbbalante itam ay waccoode ñoom nag seen ànd ak noonu la amee woon noonu la demee woon comme ni nga gisee malaan bi muuree lam sàng xarit la war a suraale morom ma yurqi dana yoor xalaafi yu xarit xalaafi yi ci xarit bi mex fa din ci lafit ndax xaritoo boogale xaandoon ak dana dese aatam lépp waye suuna haa te dañ na daan nañ jamal malaan yooyu xibaran mbir muñ day ngémmiñal bi bas leen ci dox ci joxe fayi den gudaaji babbu motakayi liihi mbir muñ da way naxtalante ko na dan ngir top beew fa mex fa din ci gën jaay mati handaar xam nga malaan mi bu yaatoo dana mën a li mu war a waaye buñ ko jamalee ba mu rafet nag day yokk daraja ji nit ki bu ngeen di xarit nga def suturaal xaritoo gi moom mën naa mu ngi jëriñ waaye nag soo àggee nag soo àndee ci rangalante nag dafay nekk sag ci àndoo bi dafay génne taaraf àndoo bi ba pare na mbir mi farwata seeni cëw nga bien sin ci tedd nga taalitin nga di bu ñu fekk samiqin guraaji yëkkateku ali ay way koweem ariqil mahfidi guraaji sax ci reem mu ne tewum doone malaan ñii ko taarale jëriñante la day malaan yoo xam ne ñu ngi koy wattoo ay sun taali maanaam malaan boo ko amee pour mu amal la di ko solit da ko war a bi jamono boo ko war a lem nga lem nga ak àndoo na nag bu soxla am te xamut lay ga mën sax mooy ñi seq àndoo ga ñooy baaxante xel kenn ji bu mu nangoo doon jaarukaay pour yàq xaritoo boobu mu ne ñoom koo gis ci ñoom du kuy doon jaarukaay pour yàq diggante moom morom ma moromam loolu moo loolu moo saxal gi foofu rek na mbir muñ la woyee ñoo ngi lay farwata seen cëw nga baaxee suñ ci tedd nga taalifin gërë gu ñu fekk baax samiqin guraaj yëkkate ku aaliya ay way kaweem xariqin maxsidi guraaj sax ci cosaan xam nga démb la doon mébét pour mu del fi bis boo joxee gannaaw nag baaxoo fu del fi mébét it boo ma amulul xaq nax la lay e def waxarat kumul amaani atajaamullahi ndax nag moom day topp ay nëbëtam ba naxu fekk ko ci wala bala na far xeewu rek gis li mën a nekk mu jàpp ca soo ci bëgg a xam dara xanaa nga déglu ba xam ni muy waxee yow rek mu ne xayaata sori na yëmb de dese ak yi ñu wax ni de amaat sori na du yarta ibu di jangu asujaaju butéel isan fa a bu tojee bis bu la jox gannaaw comme butéel bu toj la xamul deferaat bis bu xasee ba jox la gannaaw pexeem del si xamatut wayahoodu wala di dellu cheikhun am mag fi sababil furudi ci ndaw ak aji xëwu dem baroom ak ndaw xàgg ci mag dëppaat da dëggaat ci ndaw kooku mën ta nekk wala darajo wéy nañ daal liñ ko doon nekk jeex na jeexal nañ dem nañ kama daraja ni ki wéyee alqurunu maati li nga xamee ne am nañu leen jiitu woon ñooy jeexal dem waxaalahum xalak na leen maa xaalahum li leen xalak ba leen fi jëlee jëlee na leen fi muy mbir moo xam ne noonu rek la nekk ci wax wal maru waaye xeeru mu xalladin du mu kuñu belal kenn mën daal am nekk fi dafa jógee loolu moo tax ñoom seen wàll jeex na kenn waratu classé nag dal si baaxoon na boobu naar fukk fa saqa marabiahum saqa marabiahum saa fi burrita biyaman min almalik alkarim alajwadi wasara taxa al jurmi an sarawatihim afwul afwil mufdilil mutaxammidi innal manuuna hiya sabilu faman yakun lam yantahijhu birahlihi faka an qadi waddahru mitmarul fata fa ida rata minhu ila amadin yuammaruhu radi bayna jawaatul mar'i yuxdiru naxwahu liyaxuusahu id xallahu watamal xadi sahmun li araadin nufuusi musaddadun man yarmi min muhajil baraya yuqsadi kon ñu jàng lool da wax ne ay gaay lañ ñu xam ne nañ fi ndee ki fi jëlee ñu jiitoon moo leen fi jëlee xanaa da leen fàttaleku ak da leen ñaanal la te jéggalul rek moo tax ne fasata yal na nandal marabiahum seeni lolleku waay mooy seen bàmmeel yi ñoo nekkaale feeg baa ñooy dekkee te seen tiranga yàlla xara dafa dalee bàmmeel yooyu yal na koy nandal sa abibu rida ay tawi ngërëm yal na ca tawi ngërëmal yàlla yu xiir de su boobu mooy taw bu xiir nu muy xam ne bu yàgguti ndox mi dana bëri ndeg ni mu xiiree ni muy sottee di yaman bi muñ de waamee bii moom mooy taw bu xam ne dafa yàgg ci sotti nga xam ne bu xiiruti ndox mi bëri na ndeg yàgg bi kon taw bi buy su boobu tey diima xam nga ndox ma day lool mooy ngërëmal yàlla yal na leen di fekk ca fañ nekk te sax ci da leen fekk te da ñëwee ci teraanga ju bëri loolu may wax bi fasaqaa yal nay nandal marabiahum seeni laleekuwaay mooy seeni bàmmeel saabibu rida ay tawi ngërëm di yaman mbir muñ day waame minal maliki tukkee ci buur bi alkarim baraaji tedd alaj wadi kuraaji tabe wasaraate yal na huññi taxa aljurmi diis diisu bakkaat an sarawaatihim wali seeni gannaaw afuwul afuw wi jéggalal yàlla mi jéggale akoon al mubdil karaaji maye mooy kii baaxee kii baaxal kii baaxee jaam al mutaxammit karaaji suturaal te itam yal na yàlla yal na yàlla xoyofal diir bi si bàkkaat ci seeni gannaaw mu defee ko ci njéggalam moom mi nga xam ne mooy jéggale kat bi mi nga xam ne mooy baaxee jaam moom mi nga xam ne mooy suturaal lu ne bakkat bu mu mën a doon du dara ci mbaax ak yàlla su ko rek moo yor wasara te yàlla na huññi sara yasro taxaal jurumi niiru niiru bakkat wala diis diisi bakkat xam sarawaati mu wëlli seeni gannaaw yàlla na xoyofal diis diisi bakkat ci seeni gannaaw afuul afu wi njéggalal jéggal ak kon bi njéggalal yàlla yal na xoyofal dis disi bàkkaar ci seen gannaaw al mufdil kadaa ji maye yàlla miy jëflanteeg njaam jaam ci al mutaxammit kadaa ji sutural innal mënoona dee hiya moom dee ak sabilu mooy mu ne dee yoon la wu xam ne dañ ko xàll pour ñëpp xamul kenn kuy jaar ci dund lu dul ne rek bés na ñëw mu dee nit ñi seen mën a werante gi loolu moom bokk ji ñoom ñëpp bokk nañ gëm ne ku dund dana dee xanaa kay nu dee hin de demee ak lay xew ci gannaaw dee foofu la wuutee ba xamaat kon de bokk ci waaye génnu ci daal taxallafa naasu xataa la lahum mooy nit ñi min nañ werante baawu lenn loo xam ne bokk nañ luñ ca wax illa ala sajabin xanaa bokk gëm ne koo dund dana dee wal xulfu fi sajabi te wute bi sax day génn ci boo koy seet ndax dee na mooy demee ak yee ci gannaaw dee wute ba nga ca mu yoon la wuñ xàll pour ñëpp faman yakun ku nekk na mu lam yantahi mu soobu hut ko biraxlihi ak laxasam fakaan xat daanaka soobu na ko yoon la bu xam ne ko gisul mu takk bagaasam tege ci itam daanaka ku takk bagaasam tege ci la ndax mënul ñàkk moom dee te li nga xam ne faw mu am li am baagal gënu koo du dëgg li leen xaajale mooy li am baagal dañoo toll ci waxtum lii tolloo guñ ci waxtum dee ak ki ba pare da du lu ci àgg ci waxtu mu am dee ak ki de loo xam ne àgguñ ci waxtu mu xamagut waaye ñoo ci doon dëgg nag moo tax nag koo gis dee àggut itam day soo ba nga jàppee ko muy ba àggal de ndax li nga xam ne faaw dana am ba pare gënu ko doon dëgg kama yëkkun ku nekk na lamenta yi ju soobu hóol yoon woowu birax lii ak laxasam fakaan xat daanaka soobu na ko waddaaru jamono mit marul fata lefam la mu ne jamono dafa mel ni benn santar bu xam ne daf fi nekk nit ñi da ko daw war caaxami tuur ku dikk rek bu dawee bàyyi tuuram jeex rek mu dem bàyyi fi santar bi loolu lay nitu waaw dafa mel ni benn dingre boo xam dañ ko fi defal nit ñi ñii ko daw koo dikk rek dawi tuuram bu jeexe mu dem bàyyi bi dingire bi duñ ko wax dinsaam noonu la kenn ku ne ab diit la koy def su dikkee bu diitam jeexee rek mu dem wa dahru jamono mit marul fata lefam waay la dafa mel ni benn santar la bu xam ne dañ ko tëral la nit ki pour na koy daw fa isa rada bu gaajee mooy bu dawee rada mooy daw na yar di rada yaan mooy lisimam minu ci lef moomu ilaa amadin ba ci diit yoo amaru ba def na ko dundal foo diit booba radiya mu halaku mu dee su ko defee bu dawee nag ba ay turam jeex rek mu jógee fi ne kii bu fee ñu la fee indi xaale su dundee ba àgg ci ba rek mu dal di dee bayna jawaadul mar'i diggante ba naaru góoru waay yox diru dana mu gaaw nax waxoo fa wàllu lef moomu li yaxu saxoo ngir na làq lef mi it ci mbetteel xal la wàcc na mu xuwata malhadin kàmbagaa moom bàmmeel la te mu ne santar boobu léeg nga gis koo jegal fasu naaru góoram war ba àggal fas daw lim fi war a am balaa départ tuuti rek dal di fakkatalu daanu far fahem nit ak lum xam-xam-xam ne dana dee sax teewul deyaa ngi bette ndax léeg-léeg nga gis ku naal ay naal yu jàpp ne xaj na ci dundam bu sooboo ca naal ya rek dal de dee tam te naal ya àgguñ ni daal la demee moom man da ñàkk comme nit kaa ngi jaar na ci dundu àddina te itam léeg day bette warone bay naa jawaadul mar i diggante ba naaru góoru waay yox dero dana mu gaaw nax waxoo fa wàllu lef ma li yaxu saxoo ngir na làq lef mi léeg-léeg nga gis ku war naaru góoram da dàq pour na dawi tuuram ci mbette rek xalla wàcc na mu xuwata malhadin kam bëgga moom ba mel la waaye balaa la bëgga daw di àgg sax far mu fakkatalu daanu te bu daanoo ca bàmmeel la jëm loolu moo tax ndànk rek fa yabna adama laa taxrur ka aafiyatun alayka saamilatun wal umru mamdoodu mu ne yow nit aw man man bula gaar nii rek muy man manu xam-xam wala man manu xam-xam wala man manu daraja warula hen ci ngay na ndax dina loo fi gis ne fan wi wàññeeku la àndat waaw loo fi muy dox xamul baax na gën a jege ci dee rek laa ndax dëgg ba borom dee àggee ci dee nga xamee ko noonu ma anta illa ka sarhen mu ne nit mu ngi mel ni tool boo naat waaye bu njéeréer yi dikkee lekk ko borom ñàkk bu maral gi dikkee borom ñàkk bu mbamal yi dikkee borom ñàkk bu ngelaw lu ko ëpp doole dikkee borom ñàkk bu bi xare jaaree borom ñàkk bu mag gi dikkee borom ñàkk su fekkee yëpp tool bi mucc na ci ba ñor borom du ko fi baati da koo góob waaye àll bi nit it nag la ak fu mu mën a toll rek damm wéyeeku ak fu mu mën a toll rek damm wéyeeku ndax yi damm nit dafa bëri te nit bu demee ba yoo xam ne mucc na ci damm it bu dundee li mu a dund fay dee ndax laa dina demee rek ma anta illa kasarin inda xudratihi yaa ngi mel ni tool boo naat rek li kulli shay'in min al afaati maqsuudu gannaaw ñorago afa bu ne mën na la gàllankoor fa in salimta min al afaati ajmaiha su fekkee nag afaat yi bàyyi nañ la fi ba nga ñor nag fa anta inda kamalil amri mahsuudu duñ la baati ci àll bi dañ la góob yóbbu la kër ga nit yi la su fekkee ne moom solof solof yi mucc na ci ba ñu wax ne na fan xam na lii xam dañoo ne li fi ma woon jeex na kon na dee na dem àllaaxira noonu daal lay demee waaw. mun perte la musaddadun gare guñ jubale li aratin nufuusi ñaal njëm diriya ñoom bakkan yi la arat mooy luñ teg fële da ko dakk dafa mel ni dee perte la bakkani nit ñi tegee fële xam ku téye perte googu dëkk da dakk rek nag desaan bi gis nga ki dëkkee da dakk su la a yoon it jamat na la su la moyee yoon it na la de waaye saamun fett la musaddatun gale guñ jubale li aratin nu foot ni al jam ci lia ñoom bakkan la mayar mi ku mu sànni moom fett googu même mu hajil baraya ci bakkani mbindeef yi yokk sot def na ko góom mu nekk fett goo xam ne nag ku mu laal rek mbiram dafay jeex kon ñu jàng lool ba beneen yoon insha allah am ariyan musraon fi kafi absara bil mataini ayidi yaa ko kag benn man taxtaliqu sabatuhu la yuddihi نقيل الحلائل بعده لا تبعدي أو حوض إبل ما يسد بظمئها منها أفيل هناط المستورد أو سدة يدعى إليها الأجفل كل الورى من مدعنين ومردي وحبالة كل الأنام رهينها min aajilin mutakaffifin aw qasrati وممجد حسد وممجد حسد الموالي واعتلى في ملكه ومعبد لم يحسده nee la doon wax ni mu doyee mbir moo xam ne du jaas ci kenn ci lay wéy ba tey da waxoon ne dafa mel ni bakkani ay araat lañu nee nag te fekk buñ dëkk di ko ca diit mu xattin walla kuntu xab xattu samhariyun bay ko jóg samhar musraxoon bari buñ jubale fii këppe absara ci tënkal aje xam bil mataayini jamuwaay ay din ku daa ci kàttanu xattu garab la gu mën man gunto samar nit la woon ku ci mën a defar guntux kon guntux bi su bàyyee ko ci xattu bokk ci tasqiifu samar dafay am ñaari ngëneel ca tam ta maanaam garab gi mu ca tànn tànn gi ñu ko tànn pour guntux ak ki ko defar itam tànn gi ñu ko tànn pour man guntux léegi nag guntux boobu nag ku am doole te xam fàddu ko dajee jam xam nga nit mën naa bañ am doole waaye su xamee fàddu rek su jamee mu dugg nit mën naa bañ a xam fàddu waaye bu dee borom doole te nga nayam dëgër su rek dooleem dana tax mu kon ki boole xam fàddu ak am doole ak nga nay loo dëgër foog jamam kenn du ci xalaat la mooy dugg mu ne mbiru dégg nag noonu la kenn xalaatul mu bako bi awrum wu xattin walla buntu xab xattu samhariyun bay ko jur samhar musraun bari buñ jubale fi kës di ab fara ci tenqal aje xam min masaani jamuwaay mooy ku xam fardu ay din ku daa ji kàttanu man tansaliku ku aju na ko sabaatoo ñëw ka guntu boobu lay si du ko jëriñ dara xiilul xalayeeli waxi ay jabar waa de oo ci gannaaw naan laa samaat yàlla bal xala ko mu ne mu nekk gunto boo xam ne kuñ ba jam ko nit ñi ko wër luñ ca dara mais moom gannaaw dikkal na nit nit ñi wër ko ñu jàpp ko wër ñoo ne képp taw rek mu dee moom daal fikiram docteur beeg karam beeg foroteem bi lenn ci mën da fekk dee wala kurufeg sëriñ bi mbaa safaram si danaw lenn ci mën da fekk dee wala jatu buxaaba bi mbaa bi mbaa sungufam si dana ci mën da fekk dee de wala ne man tan tale ko ko aju na ko sabato ñëw kaag dee lay ci du ko jëriñ dara li dul xalaay li waxi jabar yi konte ci gannaawam nan la saban yàlla bal arab axudu iblin wala mbalkaam ay gëlëm yu xam ne may siddu du jàdd bisim yaa ci seen naan afilun benn mburtu min haa ci gëlëm yooyu xanaa sol mustawridi wali seetu aji jàkki maanaam gëlëm lim baaxoo di naane dafay naan yës ab biir dellu naanaat yës bi ci diggante ñaari naan yi moom la ñuy bi ñu ne loolu la dafa mel ni dund naan la weede naan mbir ka nag gannaaw jaar na ci dund amul dara lu koy dee mën a dee lu koy lu ko lu ko mën a dee dee moo tax mel ni am mbalka la nit ñi daay gëlëm léegi am na sàmm yor xeet kon naan naan bu njëkk bi daal foo war a dana bi lu mën a wopp loolu lay nidu aw xaw ibline wala mbalkaam ay yoo xam ne maye si suuf du jàdd mi mm-hmm. di bihaa ci den naanam ñaareel mm-hmm. abilun benn mburtu min haa ci ñoom gëlëm yooyu xanasal mm-hmm. mu sawri di wëli seetu aji jàggi aw suddatun walla bunta kër la bu xam ne yu naa def na woote ilayha jëm ci moom al aji fala hoote bu matale kullal wara lépp mbindeefi min mudenina laala moom way torox luyi la wa murradin ak way péter luyi wal damene ay ndabi njëkk ay ndab yuñ taaj ci buntu kër te hoote ko hoote boo xam ne ñëpp lañ woo amul kay ci amul seet lan woo ko maanaam hoote bu xam ne ñëpp lañ woo ko wuñ kenn moo tudd na wacce fala hoote boo xam ne dañoo woo ñenn bàyyi ñenn mooy taw wa naqara dafa mel ni dee nag luñ xoote la te xoote ko daan wàcce balaa moom daal lu waay tuuti tuuti bokk na ci xoote bi lu waay rëy rëy bokk na ci xoote bi lu waay nooy nooy bokk na ci xoote bi lu waay dëgër dëgër bokk na ci xoote bi aw suddatun walla bunta kët la yu daa goog def na xoote ilayha jëm ci moom xalaj fala xoote bu daa di matale kullal wara lépp mbindeef yi loo mel ni ay ñam yuñ taaj ci lal de ko xoote te boo xam ne dana way defa laala xam ne amul kenn kuñ xoowut min mose nii na laala moom way toroxlu yi la wa muradin ak way fetterlu wa ibadatun te deg fiit boo xam ne kullul anaami képp ci mbindéef yi rahiinoha kuñ ca teyle la mu ne dee dafa mel ni fiit boo xam ne ñu ngi dugal ñëpp fiit xel bu baax wax ñëpp a ngi biir fiit ga biir buumam fiit gi léegi ci téye buum gi léegi bu soxlaa rek dal di soxla ka def na mu ngi ci biir buum gi waaye gannaaw soxlaa guñ ko tegal a guñ mën naa bañ a yëg sax de mu ngi ci biir buum gi waaye du rëcc kër buñ soxlaa rek tegal jàpp ko ne daal noonu la mel moo tax wa ibadatun reyinu a kunca dayle la mina idin laala moom aji ñàkk la mu dëkk sifin ku daa ji lay ki amu dara salaw ñàkk du tax dee ba de aw xasratin wala aji xoomal xasrat mooy borom alali jur borom koom gi du mën a nger dee de ba tax dee ba ko fi wa mu majjadin ak ku ñu tetal xasada koog dajale mu almawaali ma yàlla yi mooy jàmm ñi waxta la te mu koy fi mulki yi ci nguuram wala ki naan fal nañ ko naan buur bu am la buur bu am sañ la buur bu am la talaw doole jooje sañ-sañ boobu fal boobu lu ci mën a xeex dee bam ba ko fi de te bu dee am jotee rek mu dee wa mu abadin ak ku ñu jaamal koo ak nit koo xam ne nit ak soppeekat la rek lépp mu dañ ko yëlif rek muy wéy rek ci waawi ni xalaat suufeem googa bu taxatee romb ko fi de baax na foofu narabat bani saasaana fi xulawaayiha qidman ala garbil xusaamil mijdadi wa kasadhumu sawbat saxaari waxadarat tilka alhadaiqa kalbarahil masladi waramat maqasira alqayasirati alula adumo bisahmin min rasaya musridi ونحت إلى دار العظيم لهذا فاحتل دار العنقفير المؤيد وسند بغائله الحكيم ولم يدد an hurrata masanahu min asjadi ñu jàng lool léegi da doon wax mbiru dee nim ne déggul kenn ci lay jàllee te wax ci ñu jiitu woon ñoo xam ne seen tura ngi fi des waaye dee jëlee na ne xaratat gaaral na moom dee bani saasaana banu saasaan fii xula waaye in man ca njëkk ala xarfil xusaami ci ñëw ka jaasi al mijdati jay daggaakoon mu ne moom dee ci nim doone ku jéggi dayoo nim doone ku déegut kenn moo tax mu càtt banoo saasaan ñi fi daan njëkk da do buur ci àddina bi jaasim jooju xam ne kenn tulu ko waaw mu ne banoo saasaan ñi fi daan njëkk da do buur ci àddina bi moom de ci ni mu jéggee dayoo ak ni mu déggatee kenn tax na mu càtt leen jaasin jooju ne kenn tuluku xaradat gaaral na moom de banu saasaan banu saasaan ñoo fi daan njëkk da da buur fi xula waa iha ci jéggi dayoom xin man ca njëkk xalaa xarfil xosaami ci ñëw ka jaasi al misdati jay daggakoon wa kasatum hoddee na leen sawba saxaari malaanam toroxaande waxaatarat te mu bay tilkal hadayiqa yooye lay tooli dër kal barahi mu mel ni ndend al masla di guraaji kekke salaaw ñoo nekkoon ci màggayu nguur doon ñu rëy waaye jëlee na leen ci seen dëkkuwaay yu xéeme ya dem dëkkalooji leen ci mpax lépp luñ yore woon ñu daan ko tuddee doole ba ko fi mu nekk ci loxol keneen yéen taxawaloon tan ci noose yi si rab seen tool yi ya mel ni ndend koo xam ne mënuñ fay samp dara wa kasadum xootee na leen saw ba saxaari maanaam toroxande waxaa dara te mu bàyyi tilkal xadayiqa yooye lay tooli dër kal barahi mu mel ni ndend almasladi gudaaji kekke waramat sànni na moom dee maqaasiral qayaasirati njéendey qaysar yi maqaasir jamoo la mufrad bi maqsuura la mooy kër góoree rëy alqayaasira jamoo la mufrad bi qaysar la buuri ruum yi noonu lañ leen daan wax ku mosa moom ruum ak noo mën a tudd qaysar lañ lay wax ku mosa moom furs ak noo mën a tudd kisra lañ lay wax ku mosoon misra ak noo mën a tudd firawna lañ lay wax ku mosoon himyar ak noo mën a tudd tuban lañ lay wax ku mosoon turk ak noo mën a tudd xaqaan lañ lay wax ba maag ay turi barab la woon firawna bi ngay gis alquran di tudd firawna turu barab bala woon waaye dun mooy turu dëgg-dëggalam sax nag mu ne buuri buuri ruum yi ñu ci ay xodamaa ak seen kër yu rëy ya ak seen féetéer Louga ñoom ñëpp na leen fekk ak musibaam te mayut leen jëlee leen par kenn jëlee leen fi par kenn ba seen jam fekk ak musibaam leen jëlee leen par kenn jëlee leen par kenn ba seen jamono jeex déggatoo fi kenn gisatoo fi kenn waramat sànni na moom dee maqaasiral qayaasirati njëndee qaysar al ulaa ñi nga xam ne hadumoo màgg nañ ne ku doon buñaan hadimu ruum bisa min ci fett min rasayaay ci musiba musridin gudaaji jam daara aga buur la fi woon ci buuri Paris yi mel ni moo doon commissaire af àddina bi xam sañ-sañ lool yeneen buur yi jamono àndeet ne ko neexal xamay xam yu ñu wax loolu ko ko jox ndax koo ko ci joxul rek yaakaar nga ne léegi mu jëlee la fi noonu la doon dundee de noonu la doon dundee de ba askan dar bu ndaw bi taalibe asata taalis bi bim juddoo te bàyyam di buur mu mata jàngi ñu jox ko aristo mu jàng fa falsafa asata taalis baay bi de mu dikk falu bi mu faloo bañ àggee ci ba daaraa ne ko xam ne idaawa bu sa baay daan joxe danga ma koo jox ne man duma la jox dara buur la ko yow